settori, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di dellu ziar bu baax rafetlu seen ànd saa su ne RFM rajo Futur Média di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen ñëpp gërëm bu baax soxna Fama Dione ci réalisation bi waaye it Ablaye Diop mi ci technique bi janoo ak ñun ak it euh, soxna Yacine Pouy ci digital gi euh, ñu ngi waxtaanee presse bi tey ak euh, lenn ci ay xat-xat nees mën a def ba génn ci ak jubanti ci war ak ci gàttal càmbar giñ ci war a def ànd ceeg naatango Momadou Thior bu Koret Momadou Thior maa ngi lay baax maa ngi ah Abdoulaye Diop mu doon wax nañu waxtaanee njëg yi tey njëg yi moom euh, presse bi war nañu taxaw aussi pour xoolaat convention bi ah ak euh, salaire yi boobaak léegi wala. <laughs> ah moo moo moo ne convention bi xool nañ ko bu baax a baax de. Ah, ah. te vraiment def nañ ci ngëneel. Mhm. xam nga moom euh, diggante bi aussi. Hmm. dundu bu seer bi daa gën a yokk. dëgg la contexte bi war nañ koo càmbar comme ni nga ko waxee. waaw war na gën a ñoŋal hmm. période bi. bu mu def point mort rek oto kay day dem. ah loolu loolu mooy moom dëgg. <laughs> Mamadou Thior ñu ngi waxtaanee presse bi tey ak euh, li ci mujj ne actualité jàpp ko suñu naatango Euh, Papa Alé la laata loolee euh, caméra woman bu euh, buur news bu nga xamante ni ko ci place de l'indépendance, etc. et cetera c' vrai que métier moo gis ak i jafe ak xat-xat du ñàkk waaye souvent nees mën a taxawee ak yi également ba xool jubbanti yi ci war seen taxawaay ci wàllu woowu d' abord Papa Alé woolu gi nak ngeen ko gisee ñu ngi xaar déclaration bu association de presse Sénégal ci kanam tuuti yow lan ngay wax ci gàttal ci ci woolu Papa Ale ak xamante ni moom la ñu ne moom lañ ko toppee. waaw euh, jàpp bi ñu jàpp suñu naataango Papa Alé Niang dañ koy dañ koy ñaawlu xam nga euh, journaliste moom tax euh, tax ko xibaar fu mu ko yàppee dem ba léegi si àdduna bi loolu rek la ñuy waxtaane mm-hmm. te loolu day gàkkal réewu Sénégal bi ñuy wax ni démocratie lay ndamoo mm-hmm. donc ci wàll woowu ñun mënuñ koo rafetlu te dañuy ñaan nguur gi ñu delloo soit seen seen xel mbir mi te di loo xam ne comme li nga doon fàttali sànq mm-hmm. samedi ñu bunduxatal suñu euh, jigéen boobu. Mm-hmm. dimanche bi ñu jàpp aale euh, Pape Alé ci ay anam yoo xam ne anam yi doy waat je que fekk nit muy changé borom nga nga këf yóbbu loolu aussi mënoon na ñàkk. Mm-hmm. Pape Alé Sénégal euh, Ndakaaru la dëkk. mënoon nañ ko yóbbu convocation. mu mm-hmm. dem wuyu parce que loolu aussi ci état de droit nit ñi nañuy nañuy ànd ak seen sago. parce que loolu day tax ñu gën leen a naw. mais am na yenn jëfin yoo xam ne yenn si suñu. police ak gendarme ni ñuy doxalee loolu du tax ñu ñu ñuy kañ suñu état Sénégal te état Sénégal nag état rajo Sénégal li ñu ci mënti wax. c'est des hommes et des femmes d'honneur te loolu dañ ko war di ko di ko sàmm. am na comportement yoo xam ne je pense que dara jaru ko fi dañ delloosiwaat xel yi. te ñun euh, loolu moo tax ñu woote ci kanam daje. Euh, pour wax waxtaan ci euh, du du ne dañuy def corporatisme déedéet. liberté de la presse dañ loo xam ne loolu duñ ko duñ ko caaxaane. parce que bu fekkee ne rek. xokkatal journal ñu bàyyi mu jàll rek. bu bu Pape Alé Niang la tey suba mën na nekk Mamadou Thior mbala mu nekk El Hadj Assane dëgg la combat de principe lay doon ko lol lol lol lol lool la. mais mais est-ce que quelque part xawuñu bayyi suñu loxo boobaak léegi xam nga mbir aussi bu fekkee ni ci njëlbeen rek léegi solidarité bi euh, do ci sentir ben yokkute lu may muy gëna a bu nee ba ku ne foog ne sa morom euh, voilà man euh, sama intérêt ak sa yoo ak et cetera donc xëccoo bi boo yobbo yóbboo fu warulee ci comme bolo moy doole bis bu gaynde gi dugg ci ci gétt gi du fa bayyi kenn. waa te gaynde googu sax dafa dugg nañ ci gerte bi feew feew la mhm. parce que damay fàttali toujours li xewoon 2004. Madiambal bi ñu ko fi jàppee. Mhm. ñun ñëpp a manko ba euh, nguur Ablaye ba woon euh, génn ko si kaso bi. Euh, moo ne peut-être na mu doxalee am na ci loo xam ne am nay gàkk gàkk mais principe pour liberté de la presse la ñuy mhm. parce que loolu journaliste bi def liggéeyam Pape Alé document bi mu bi tax ñu koy toog est document la. document la boo xam ne bu foo la mbala bu bu dëgg la mm-hmm. foofu la coow lu nekk mm-hmm. bu dee bu de document bi lañ ca wax euh, loolu la ñu war a càmbali itam mais euh, di ko topp ci ay yoo xam ne ay euh, divulgation de de documents top secret bon loolu aussi di loo xam ne euh, moom journaliste d'investigation mhm. la jàppee boppam te journaliste d'investigation à la kuleyali mhm. mboot mbooti gars yi nëpp moom moom lay sulli donc euh, loolu aussi il faut que nit ñi nit ñi xam ko mhm. mais solidarité boobu nga wax dafa dafa commencé na sax si ñun parce que tey bu ñu euh, solidarité bi ñu gisoon si 2004 si affaire bu Madiambal Diagne bi loolu nañu waxante dëgg gisatuñ ko bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu dalee si kenn ñeneen ñi naan ah baax na ci moom te moo ne xam xamul ne bu ñu jógee si kooku ah.

Qui ci à qui ak ci opposition Et souvent y a une certaine diabolisation lors même du du taille xam nga euh, Sénégal aussi dafa am ñoo xam ni seen gis-gis dafay gàtt lool euh, wala boog ñun suñu bopp ñoo tàmm di fàtte tu as l'impression que même certains hommes politiques qui pensent que ñoom tey bi ñu ñëwee la Sénégal am alors que démb a ngi foon bërki démb ay nguur a ngi foon bu Abdoulaye Wade bu Abdou Diouf ba ci Senghor mais souvent le le parti euh, qui est dans l'opposition day xaritoog wala entre guillemets foog ne moom nga àndal bu faloo jàppee la ki nga xamante ni kat bu ma teelul dammi laa fa mu mu daal di may ñàkk lu sama nguur loolu ba kañ waaw xam nga loolu mooy wane ne eh, bu bu dee bu dee boo nekkee si kuje bi nga ne journaliste yi liggéey bi ñuy def baax na boo ñëwee si nguur gi nga ne li ñuy def baaxul ça veut dire que ñun li liggéey bi ñu def baax na. Mm-hmm. nañ nañ taxaw nañ taxaw si loolu. bu ñu mm-hmm. soppi bu ñu soppi mu. Mm-hmm. Eh, te loolu nga dafa am solo pas plus tard bi ñuy def waxtaan benn conférence de presse ñu ngi doon eh, kii xelal suñu mbokk tasatu xibaar yi parce que ci ëllëg si la ñu waroon a déglu Ousmane Sonko. donc ñu ne leen vraiment ci wàllu affaire wu takk der yi lañ doon wax ak ni ñu war a taxaw ak ñoom. Mhm. ñu leen di euh, xelal ci wàllu woowu. parce que mhm. ala kulli alin. Mhm. dañu ñëw nekk ci terrain nañ nañ ko nañ ko rafetal. dara jarul fii euh, di bundu xatal mbala loolu. nee nañ leen ku ci nekk identifié wul. am nañ carte de presse bu bees bi. am nañ ay gilet ay gilet presse. donc loolu fu ngeen fu ngeen di dem ci terrain boo xam ne dafa xaw a am ay ñagas ñagas mais yóbbu leen ko parce que loolu mooy tax ràññee leen ko comme ay taskaroy waar xam nga ñun ci wàll woowu jàmm la ñu dox. mais aussi policier ak bi foog ñu xam ne presse bi ñëwee foofu seen liggéey la ñu def. comme mhm. ñoom service commandé lañ nekk. ñun service commandé si turu askan bi moom la ñuy jox xibaar. Mhm. donc euh, na na rafet suñ diggante parce que dara dara jaru ko fi. parce que mhm. affaire yi dafa commencé euh, fitna bi. te niñ ko niñ ko dénoncé si opposition yenn si euh, ñu nekk si kujje bi di def naka su dul noonu jëmal si wàll noonu lañ ko noonu lañ ko. dénoncer ci nguur gi tey. Mhm. parce que ay ndey ji seex la ñu. Eh euh, képp koo xam ne dafa da nga bëgg a nasaxal tesum saxaar duñ ko nangu. dañ mhm. ko wax ba ñëpp dégguñu. dëgg la en tout cas il faut que il faut que fulla ju mat sëkk ñu wane ko parce que daf ci am nu yenn euh, responsable politique di waxee loolu euh, du ñu xaar ba bakkan di rot ñu soog di ca taxaw. il faut exiger et le respect et la responsabilité dans leurs propos. Ah. responsable politique yooyu ñun ñoo xam ne ñuy def jëflante parce que ñoom seen intérêt lañ ci nekkal. Mhm. ñun nañ xam ne suñu patron mooy askan bi. Mhm. te askan bi nag fu ñu jox leen xibaar. xibaar bu bu wóor te boo xam ne eh, amul ay laam-laame. Mhm. lu lu leen jaral nañu ko jaral. parce que loolu loolu loolu lañ fi nekk. ak lu manti xew ñu wax nit ñi. te lii moo xew. ak fu mu manti féete muy mhm. nguur gi muy si jëwee. dañuy wax dëgg rek bañ ko déggee si dëgg. Mhm. amul benn problème. mais euh, mais loolu li la koy may tamit yow journaliste bi et là je nous parle il faut aussi responsabilité. mënoo dans l' exercice de ta fonction nga ci wutur ay buzz ak neex diw ak Masamba ak Mademba. waaw loolu loolu loolu ngaa dëggal te moo moo tax ci wàllu responsabilité toujours dañuy delloo nit ñi ci texte yi ñu tënk xam nga mhm. yenn saa aussi mhm. euh, suñ biir du ñu dem càmbar texte yi ñu tënk parce que dafa am loi yoo xam ne ñooñu ñooñu tënk buñ ci biñ ciy gëstu di ci gëstuwaat xool boo jëlee charte des journalistes du Sénégal dama koy wax toujours euh, CORED par exemple tase na presque organe entreprise de presse yi daaw euh, ma ciy delloo njukkal ndem si yàlla bi ci dëddu di généraux Kaya parce que ñoo ko def man ak moom ak ñeneen ñi. Mm-hmm. Euh, di leen soññaat ci affaire charte yi ñuy tënk parce que dafa am solo wax dem sax ba wax leen ne ngelawaay it affiché ko si rédaction yi ñu xam ne lii moo war a nekk taxawaayu journaliste. Mm-hmm. suñu devoir ak suñu droit. charte boobu weer yu ñu génn sax euh, correct def na benn lël boo xam ne pour càmbaraat ko parce que xam nga mbir buy dox ba ab jamono. day mm-hmm. day laaj ñu joyante waat. Mm-hmm. donc euh, ñu ngi ci joyante waat boobu après pour euh, gën koo méngaleeg euh, réalité tey. Mm-hmm. parce que dafa am solo. ci wàllu woowu. te ci lu yàggul dara itam dinañ delluwaat ci rédaction yi. pour charte bu bees boobu ñu xam lan moo ci ne. am na solo ah, parce que dafay dafay tax doo exposé wu. waaw euh, xam nga euh, da ngay seetaan télé dama koy seetaan wala rajo yi parfois da ngay déglu émission rek nga xam ne lii amul fil conducteur. <laughs> Eh, eh, eh, wala nga gis nit ñuy liggéey nga xam ne amul brief def brief amul dara voilà. waaw xam xam nga liggéey bu ñu mënti def yow yow boo paree sa émission bi pare ni li si gën mooy toujours. defal débrief boobu ngay wax. Mhm. après après nga toog ngeen ngeen càmbar mbir mi. Mhm. parce que loolu bu ñu ko doon def du ñu yokkut. Mhm. boo boo génnee boo génnee par exemple humilité quand parce que y' certains intellectuels vraiment yoo xam dañu euh, dañu réfractaire aux remarques voilà quoi man xawma leen dal. wa waaw mais xam nga xam nga borom xam-xam du du du du du bañ ñu koy joyante parce que nit nit dong la. Mhm. donc loolu aussi quand on est un intellectuel. un mhm. intellectuel parce que dafa am. intellectuel intellectuel. Mhm. donc euh, humilité. ak intellectuel moo moo moo moo ànd. parce que loo xam-xam-xam di nga romb koo xam ne moo la gën a xam. toujours man li may wax nit ñi suñu métier bi dañuy métier boo xam ne faw ñuy bàyyi lenn. bu fekkee ne yow euh, nit ñi ubbi seen rajo. ki am niveau CM2 ba ki am euh, professeur agrégé université diggante boobu ñoom ñoom ñëpp ñoo lay déglu mooy ñi jàng ak ñi jàngul sax di la déglu parce que léegi ak kàllaama euh, na euh, langue nationale utilisé mhm. donc faw faw yow booy wax li ngay wax mu waxu comme ni mhm. ko wolof jaay di waxee mais bu dee boo waxee ni ñi dañuy dal seen seen bopp loolu mhm. aussi du du yoon te faw côté boobu nag ñuy ñuy waxante si ñu biir am na ci ñu bëri yoo xam ne yow taskatu xibaar bu fekkee ne li ngay wax xamoo ci dara. Mhm. mais ki nga koy wax mënoo mënoo koo gindi. donc eh faw ñuy ñuy delloosiwaat immunité boobu ngay wax. gën a gëstu pour bu ko defee bu ñu waxee. ni ñuy mhm. waxal xam li ñuy wax. Mhm. ñu jeexale euh, Mamadou Thior ginnaaw bi ñu la gërëmee ci vraiment temps bi nga ñëw may euh, mooy càmm teg liberté yi. Euh, décision bu ñu ci jël au delà de l'affaire Papa Alé Niang euh yeneen nañ ci kanama ah, fi ba 2024 su ko sañee wax presse Sénégal du am jamm ndax dañoo jëm ci élection yo xamni chaque jour déjà ñu ci campagne électorale fi ba 2024. ensuite patch euh, bu ne ak intérêt ak sax militant xéti militant yi bees yi ñu am légui nga xamni kenn xamul luñu hein ah. voilà te te loolu nag léegi alaaji san léegi lañ koy gàttanu mhm. parce que gis nga wax nañ suñu assise de la presse bi ñu bëgg a def mhm. euh, bu ñu yàlla bàyyee bakkan euh, at at bi ñu jëm deux mille vingt mhm. parce que loolu yëpp si kaaraan kaaraange bi bi ñuy wax waxtaane ni bokk na si koñ yi ñu nar a waxtaane parce que xam nañ ne euh, élection yu xaw a doy waar la ñu jëm muy kuje bi muy nguur gi ku ci nekk yaa ngi xëcc mu dem sa côté te loolu aussi da loo xam ne mën nañ fitna ñun tax yi du ñu bàyyi nag ba nit ñi dal suñ kaw ñuy doog yuuxu hmm. léegi lañ ko yuuxu bu ko defee nit ñi xam ne Sénégal tàmbaliwul tey ba nañ ñi di la loolu sànq xel seen kujje beeg eh, ñi nekk ci nguur gi xam ne mbir mi da tey yow la suba sa morom hmm. bu ko defee Sénégal ñu ñëpp ñoo ko bokk mais nekk fi ku nekk naan euh, di xëcc ba mu dagg. Mhm. loolu bu Sénégal suuxee ñun ñëpp ñoo ciy ñaax. dëgg la assainissement bi tam ñu banañu taay continuer ko de parce que vraiment léeg-léeg sax ñu naan presse bi fekk benn waay ju ca dara jotaliwul ak presse moo ñëw wax tooxi doonam dem ñu daal di gaañ doomi jàmbur. waaw loolu assainissement boobu moo tax ñu instauré carte nationale de presse bi mhm. te ñu ngi soññ sax ñi nga xam ne parce que am na ci bëri xam ne comme ay anciens la ñu mhm. léegi ñu ngi traîner les pieds te premier décembre la ñuy la ñu la affaire bi di kii benn fan ci weer décembre ñu jëm mhm. képp koo xam ne euh, amoo carte de presse dañuy jàpp ne yow bokk si métier bi te bu boobaa nag am na daan yoo xam ne moom la ñu prévoir mais buñ la si jàppee dañ dañ lay teg ay daan donc gëm nañ ne dem sur le terrain ñun képp koo xam ne gis na kuy def naka su dul noonu. du bu di buggoo suñu métier bi te bokk ci. boof nañ ko nañ ko jëflante ak moom. ba mu yem neex. très bien Mamadou Thior RFM nga lay gërëm bu baax di la sant merci merci beaucoup Thior ñu koy gërëm bu baax ci euh, vraiment disponibilité bi euh, doon waxtaane rek euh, li nga xamante ni mooy métier tasam xibaar rawatina woolu ak jàppuk suñu naatango Papa Alé Niang presse bu Sénégal yi yëpp jaaxle ndax presse xam nga li ko gën a yitteel mooy wàllu liberté ci liggéeyam donte it waxtaane nañ suñu biir li nu war ci wàllu taxawaay ci wàllu nekkin ak càmmuwante ak lii di yoonaluk métier mi waaye ci tënk Euh, mom sa bop vraiment euh, kooku mom du lu nuy euh ci métier tassam RFM 8h55. buñ ko jërë ngeen jëf pencoo geeg RFM ñu euh, daal di wéyal waxtaan wi ginnaaw bi nu ci noppee ak kii di euh, Mamadou Thior euh, journaliste jiite CORED CORED mooy kuréel gi nga xamante ni ay naatangoo ñoo ko daal di séq ngir rek di sàmmonte ak cellal gi métier mi laaj yoonal gi naka noonu ku ne war a daal di moytu rek wala am kersay jaar seen kanam ndax atte bu ne mitti na naam ci gor su tooñ waaye sa bu say naatangoo rawatina. Euh, kon euh, waref naka gëna niko moytu ñukoy denk xalé yi ci liggéey bi ci it euh, xamni bi njangum bis bu ne la ni koy waxe éternel apprentissage boole ci oyof di jang di gëssu xam-xam kese la la interlocuteur di mëna respecter mui muy politicien di économiste di ku mëna doon bo janoog moom moo xam ni am lu ne ci sa biir comme on le dit en français lolu gëssu ak jang ak oyof ak laajte <laughs> ndax ku xam lepp mom dafa naa maaleykum salaam El Hadj ñu ngi lay ziar kooku. Laye Makhtar. ziar nañ la bu baax la. mooy wootee damay tënk rek. Hmm. Mamadou Thior man ku ko xam laa. ba may def mini basket mu ngi woon sa université moom ak ñoom Adama Kane. ku hmm. ku dal hmm. grand bu jaar na RTS xam naa ko bu baax. mais El Hadj Assane. journaliste liggéeyam lay def comme ni ko Youssou Ndour wooyee. journaliste liggéeyam lay def. justice du dëgg. moo man de li ma xalaat ci problème mu pap Alé moo waral débat bi. Mhm. moom si boppam tëddeewul njaaxaanaay waxtaan wax dëgg ca la. te armée ak justice dafa nekk loo xamante ni dafa sensible. loo xamante ni day taal réew. par par loo jaru ko nañu wax loo xamante ni mooy defar réew mi parce que yi ñuy def nii jëmewul Sénégal kanam président ma taxaw pour réew mi gisoo dund bu muy wàññi. askan bi sonn nañ def naa ci loolu la ñu war a nekk. mais mbiccoo mbàlloo jaxase par par loo loolu la ñu war a bàyyi. maa liggéey bu baax tënk ko wasalaam. jërëjëf waay merci beaucoup. ñu leeral rek waxtaan wi ñu tënk ko ci ay principe euh, waaw vraiment euh, waxi diw ak diw taxul euh, ñuy pencoo dañuy pencoo ci ay xalaat ak principe de démocratie de droit de liberté bu leen neexee ah ñu leen koy ñaan rek sinon ñu obligé dagg yenn appel yi. asalaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah. El Hadj Assane. waaw. Souhaïbou. sëñ mel ni rocceeku du de sëñ Souhaïbou Guèye su ma juumul sama doom bàyyi ca Touba Mbacke xëy na mu jéem a dugaat asalaamualeykum. waaleykum salaam. ñu ngi ziar. waaw. sa boor la de Serigne Mor Niang bu Mbacke bari la. <laughs> ñu ngi lay nuyu di nuyu Babacar Fall ci suba teel sañu ma wax doo sama buur de waaye sori woo de <laughs> am sama xamul rek. Ah, ñu ngi lay nuyu di nuyu auditeurs yëpp di ñaan réew mi defal ya rabbi. xam nga El Hadj Assane euh, journaliste dafa am solo ci àdduna bi yëpp. Mhm. ñun dañuy toog suñu kër rek ndekki ba regg wala ñu fanaan nelaw ba am mhm. information. Mhm. gisee di leen songu daf may waaw. Mhm. man loolu lu ma jaaxal la. c'est que liggéey kii def liggéeyam convenablement. Mhm. kooku amul droit empêché ko. Mhm. kon nañu gën a góorgóorlu baax a baax ci presse bi suñ ko deful presse bi lañ bëgg a reere te information moom ñëpp a ko soxla. dëgg la muy ku fi nekk président koo xam ne daanu nga ak. yëpp xabaar yi di ko war a yëgle à tout moment. léegi la sax mais ala jaasal xoolal jamonoy arabe yi booba jile moo amoon. nit ñi dañ naan jël ay xabaar bu xabaar wàccee. dañ daan daw tas ko ci biir dëkk beeg seen i gileem. Mhm. léegi àdduna bi dafa dox ak mondialisation bu ñu nekk nga xam ne léegi dara taxawatul. dëgg la digital am lépp am. Mhm. fu waay toll war ngaa jot xabaar portable yi posté léegi ñu ngi leen di seetaan ni ci eh, kii en live bi ngeen def ni eh, RFM. kon àdduna dafa dëgg la àdduna dafa soppeeku de. <laughs> àdduna dafa soppeeku. Mhm. àdduna nit ñi na nga xam ne. àdduna dafa soppeeku. mondialisation la nekk dara waratul taxaw. dëgg la. dara wa bu njëkk imprimerie dañ daan rang léegi gis ngeen sa waaj imprimerie bi président Youssou Ndour indi mhm. adduna bi moo dox boobu moo gën dañu nekk génération bu mujj dëgg la de nga xam ne dañu <laughs> commande benn commande dul taxaw lu mu doon boo mhm. amee commande Tamba ñëw Sénégal mën ngaa toog foofu noonu ci biir taal bala ngaa pare waaw nga dem adduna bi moo dox maa la ko wax jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñang jërëjëf wax na dëgg addina moom léegi yëf yi daa gën a yomb de nit ñi normalement jëf ji daa war a gën a rafet <laughs> Euh, li gars yi di wax salaire yi euh, dafa gën a yokk waaye tey la àddina gën a metti ndax sunu papa yi amul woon li nu am tey daa mel ni Ablaye <laughs> est-ce que du ñàkk barkeel wala saagante yi nuy saagante moo tax lu ne din dal <laughs> du mos a am jàmm xol yi moom bu fekkee tàppe wuñ ko ci fitna rek ku ne ngut nguti sa di baax mel ni kuy tàngal ndoxu kafe <laughs> asalaamaaleykum. Euh, asalaamaaleykum El Hadj Assane. waaleykum asalaam. Boubacar Kees. ñu ngi lay ziar Boubacar. ñoo ngi char di la nuyu di nuyu auditeurs yi ak auditrices yëpp. ok ñuy waxtaanee tamit euh, nañu xam ne dëkk bi ñoo ko bokk. Alaaji Assane métier bi journaliste naam doonuñu ko waaye xam nañ ne nekk na liggéey bu am solo war naa nekk nag loo xamante ne képp ku si nekk fexeel ba kàddu yu ngay génne wala lu ngay génne ci biir information mu nekk tamit loo xamante ne dina jëriñ askan bi te dina nekk loo xamante ne dina andil askan bi dal. te man de suma si bokkoon tey ku mel ni yow ku mel ni sunu kilifa boobu génn léegi coor dina bëri surtout ndaw mu nga xamante ne war na leen leen a jege yéen wala yéen ngeen di def ay séminaire di waxtaan ak ndaw ñi si nekk ñi valeur yu nga xamante ne tey ji moo nekk si journalisme mhm. yàlla na yàlla def jàmm defal àdduna bi sutura defal réew mi sutura ñoo ngi nuyu nag monsieur le ministre docteur Pape Amadou Ndiaye di féliciter tamit président si wàññi bu nga xamante ne def na ko ak ay jawrinam ak ñu nga xam ñoo bokk ci secteur bi ba askan bi tay jii sunu ñuy joxe dépasse ak sunu yaay yi dem marché ak sunu soxna yi ñaanal nañ ko te kontaan nañ ci yalla yalla def jamm ci réew amin ya rabbi merci boubacar assalamu alaykum waaw aladi asan waaw elas wilan geejju way sam notaire ñu ngi lay ziar baax wilan aladi ñu ngi lay delo nuyu di sant nak euh, wa réew mi di sant njitu réew mi mhm. ci wax deug yalla taxaway bi mu am ci walu dundu bi Mm-hmm. mu doon lu nga xam ne fu ne fi jamono toll except wax dëgg yàlla euh, ku jàppale nit ñi ci dund bi day am solo lool mm-hmm. kon vraiment ñu ngi rafetlu bu baax dund bi euh, bu loolu weesoo ci ah. biiru audition Pape Alé Niang mm. may wax rek ne euh, seen mbokk yi nañ ci ànd ak dal ndax ñun kat ñun yéene suñu lépp mm-hmm. ndax bu ñu xëyee lu mën a xew ci réew mi yéen lañ ci yéen ci yéen lañ ciy bàyyi xel kon yéen yaakaar naa ne lépp solo mooy ñu ñaanal leen jàmm waaye nag benn baat bu erreur tamit bu ngeen bu ko bu ko ci kenn ci yenn defee rek. Mhm. mën naa indi leneen loo xam ne mën na indi division ci réew mi surtout nag wàllu sécurité. Mhm. ak wàllu armée mu nekk lu doy waar. Mhm. kon tey ji tey olof Ndiaye ne na fot ci ndab fotati ci ndab du fukkale bëgg lekk la. kon damay wax rek ne fi may daanelee mooy. xam nga li nga jàppee erreur keneen mën na ko jàppee ab sañ-sañ ci defu liggéeyam moo tax nañ bàyyi rek xëy na. waaw léegi nañ bàyyi yoon def liggéeyam kon lépp solo rek mooy nañ rafetal di wax lu rafet. di def lu rafet. wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum asalaam wa rahmatullah asalaamualeykum. waaleykum salaam. Adja Soda. Alaaji noo fanaane Guèye. ñu ngi lay ziar baax Dieng. maa ngi lay nuyu di nuyu waa rajo bi yëpp. jërëjëf. di ñaan jàmm ci réew mi di ko ñaanal sénégalais yëpp. amiin bi rabbi. Alaaji dangaa wax lu am solo. Mhm. mooy li nga jëkk wax mooy manko mhm. alaaji mbooloo mu mànkoo lu mu mënta faj amul ci àddina dëgg la ndax yàllaa tax may wax li ma ne ah, ah, RFM di sama rajo taxul may wax mhm. li may wax yàllaa tax rajo yépp lay déglu mhm. mais ci rajo bii tey bu ma fi duggoon bëgg a attaqué Pape Alé Niang wala mu bëgg a attaqué beneen journaliste bu ne beneen rajo mhm. ku ko fi def ngeen dago ko dëgg la te pourtant ay nit hmm? damay leen di dégg ñu dugg ci rajo di hmm? wax bay saaga Alaaji Assane Gueye wala Youssou Ndour uh-huh. ñu bàyyi ko mu wax ba daane <laughs> loolu mooy ñàkk man ko bu ñëpp yamee am ñu gedd seen cër deux mille onze ak deux mille douze ba ci hmm. eh, sama sama doomu baay ba Kambel Dieng uh-huh. tëjuñu ab rajo fii ba dóor leen ba gaañ leen waaw tojaat fi ay rajo loolu gañ nga ko gëj a dégg ba Macky Sall toogee ba léegi yàlla tax may wax dégguma ñu toj benn rajo walla ñu dóor journaliste. Mm. kon journaliste métier am noobal la Assane. Mm. alaaji Assane métier am noobal la. ay gor yi set wecce ci ne waaye daa am ñu leen bëgg rax. Mm. rax googu nag loolu nga wax yàgg waa ji duggoon sànq nga doon ko questionné. da ngeen di jóg seet ñi nga xam ne ñoo bëgg a yàq métier am journaliste. Mm-hmm. ngeen arrêté leen. parce que journaliste métier noble la. Mhm. toog fa nga toog démb làmb ja ba ne RFM di ko jàllale damaa mer ba. Mhm. ba feesal ñu ne benn rajo di ko jàllale. Mhm. kon jour métier noble la. Ah alaaji ah tànn leen sax sax si ne seen biir génne leen ñu bëgg a taar réew mi. dëgg la jërëjëf Guèye <laughs> nekka ci jàmm. jërëjëf Adja Soda vraiment kontaan nañu asalaamualeykum. nga. li Mamadou Thior wax sànq moo ci nekk ku foog ne bu ñu sa nasaxalee diw yow dalay yëkkati <laughs> ndax nga sa bopp buñ la fa fekkee yaay gën a mettale sax ki ki nu fiir ci yoon wi jàll donc euh, lu nuyoo rek da koy fay waaw corporation boo gis nag waaye teg ko ci dëggit waaleykum salaam. Ndao Diassane. kooku. soxna moo desewaat. ah yi bu ñu gis yaar waay. alhamdulilah maa ngi doon dégg da xam naa daa rocc kon keneen dugg xam naa rek. waaw boo demee mbiri serveur moom. waaw ki man la. Hmm, dëgg la. maa ngi rafetlu liggéey bi. alhamdulilah. di wax ne Sénégal moom réewum démocratie la. kenn ku ne war ngaa jëmbat démocratie mu jëm ci kanam. Mhm. kenn ku ne nag boo bàyyee xel sa bopp rek bàyyee xel sa morom. kon mhm. jafe-jafe doo am. loo xam day jël daa jur jàmm réew mi. lu mel ne mhm. armée ak yu ñu demee. xam nga dafa sensible. xam nga mën nga wax ci Macky Sall wala nga wax ci am ministre wala député daanaka wax ci sax bu dee dëgg la ak groupe dëgg yëpp maam mën naa am na mu war a waaye wax dëgg moo gën. lu nga jékki-jékki wax loo xam ne di am na général dafa buy tabax këru six milliards loolu li mën a déstabiliser ci armée bi dafa bari ñi nga xam ne ñu ngi ci naaj yi ñu ngi ci àll bi fu ne ñu ne fa ñu jigéen lu mel noonu ci seen supérieur ko déggee neen noo xam ne kaala ngay réew mën a ci aju kon kuy wax tey wax ci réew bi war ngaa wax loo xam ne dana jëriñ réew bi mhm. te ku nga xam ne moo waaj yi dañoo seetlu ne journaliste nag waaye day farfarloo parce que seetlu nañu ba Sonko ñëwee ba léegi ay waxam féetutu bor benn côté daa daa féete benn côté la jëm te journaliste bi daa war a féete bor booy présenté débat wala ngay présenté journal hmm. da ngaa war a wax ni deme rek bu ko defee bàyyi nit ñi ñuy xam ñu ko déggee kuy commentaire commentaire na la neexee waaye nag bu fekkee da ngaa wax benn bor rek hmm. waaw jaajëf jërëjëf jërëjëf Guèye jërëjëf asalaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah bisimila El Hadj waaw sëñ Omar maa ngi lay ziar bu baax di la baal wax jërëjëf Sow baal nañ la nga baal man de tey de Alaaji Asan xam nga man moom pël la man moom tey am na leneen ma gën a kontaanee tey mooy affaire dund bu bu ki bu ñu wàññi location bi. <laughs> wàññi bi ak location ah wax dëgg yàlla lu koy moom man damay ñaan soo nekk sa monsieur le président. Mm-hmm. na suivi bi na suivi. le mm. ministre le ministre Fofana. Mm. mu ngi def lu ne laa la wax. mais Alaaji Asan nguuru Sénégal lan mooy seen problème suivi. Mm. nañu jéem a góorgóorlu ñëpp jàpp ci laala man Oumar Sow ma jàpp ci yow Alaaji Assane Gueye jàpp ci policier bi jàpp ci gendarme bi jàpp ci ñëpp jàpp ci affaire bi mën a am suivi mhm. te suivi bi du kenn moo ko mën ñëpp a ko mën mais surtout état bi moo si mën a war la gala dooleel suivi bi wax dëgg yàlla location bi Alaaji ci quoi considéré keroog déglu rajo mhm. ñu ne moo gën a cher si d'Afrique de l'Ouest mhm. vraiment Alaaji Assane war nañ wala suñu boobu te dafa métti dafa métti de Alaaji Assane vraiment maa ngi ñaan naan son ex monsieur mu taxaw ni laalaw na si bu mu dellu benn ginnaaw laal na na góorgóorlu vraiment jàppale sénégalais yi ba dund bi lekk bi ak na location bi loolu bu amee rek bu wàññeeku rek réew mi dina dal dina jàmm jamb dina am maa ngi leen sant baax di leen dina ñàlla yàlla defal jàmm di di ziar sama proposé mu sabal yàlla mu sakko seydaan jërëjëf amiin yaa rabbi jërëjëf merci Omar ziar Mbaye Fall bu baax <laughs> Mbaye Fall toilette bi moom xam naa xam nga comme yow da ngay a xëy quatre heures du matin da nga bàyyi ba soxna si nelaw mais lii moom leneen nga ci jublu dul liggéey si am na fooy jaar 9h10 ci RFM asalaamaaleykum. <laughs> waaleykum salaam. kooku. borom baat bu neex bi. ah man de xàmmeetu ma ndax dama am ñaar ñoo xam ne daal ay ko di jaas lañu waroon doon muy euh, waa ji mbay fële ca Mbàkke sëñ xaas ak oh. ak Boy Jaw Assane Gueye Boy Jaw ah ak <laughs> Assane Gueye Boy kii bi de xorom polle bi baax na ci de <laughs> ak waa ji ceeb bi ceeb bu dijj bi dafay xoos baat. waaye nuyu naa la <laughs> maa ngi lay ziar bu baax. di nuy sa technicien. jërëjëf jaw mais du nuy de passage honorable député Adjaratou Sow Dieng moomu génn. Adja Soda. waaw xam nga El euh, Hadj oui presse mënul ñàkk ci réew. Mhm. moo tax euh, moo tax euh, constitution bi à son article 8 autoriser la liberté de la presse. Mhm. Mais cette liberté de presse est très bien encadrée aussi par la Constitution. qu'il mhm. Parce que bien bien des assemblées assemblée nationale a voté code de la presse qui y a ñu de dépénalisation des délits de presse. Mhm. mais li assemblée nationale il y a des codes de conduite déontologiques, euh, pratiques déontologiques, qui pratique yi ay pratique déontologique. a des da ngeen ko y a ko respecté. Il y am cahier de qui sont ki du armée du yëfi caaxaan force de sécurité défense du yëfi caaxaan Alaaji Assane hmm. gis nga force de sécurité défense Nous ñoo ëpp problème nous ñoo ëpp problème ñëpp nous mais dañ leen retirer seen droit de syndiquer hmm. retirer retirer les seen droit de manifester ndax uniquement pour une question de défense nationale kon bu ñu des dossiers yoo xam ne classé top secret hmm. normalement yow loo xam-xam ak loo man-man ak loo doon doon professionnel ce professionnel war na la may na may nga secret nan bu aussi internet démocratie. Hmm. parce que moi j'ai vu dans les grandes démocraties du monde entier mais l'auteur de Wikileaks mooy Julian Assange c'est ko top. parce que dafa divulguer des secrets euh, classe top secret. Comme hmm. nan bàyyi bu y dafay dara rek ñu bëgg indi démocratie démocratie une démocratie très bien encadrée. encore une fois comme dossier le bu nekk comme nous avons dit, waxee te yéen gis na mas mas nañ fi jàpp seen directeur de publication yi. Hmm. mooy Alioune Badara Fall ak hmm. Mamadou Seck. Hmm. mais bi mu demee ci yoon bi mu demee ba xool ne topp ñu ko dara dañ ko bàyyi. ñaata directeur de publication lañ fi jàpp. mais journaliste yi aussi nan xam ne métier mi métier bu noobu la. dañ ko encadré du lu la neex wax du lu la neex def asante dara du la ci fekk. ndax bu ngeen bëggee code de bu ngeen bëggee dépénalisation des délits presque gars yi dañoo bañoon. kon nan rafetal métier mi. rafet soo duggee ko ci jabi. très bien jërëjëf El Hadj Assane. jërëjëf jërëjëf. asalaamualeykum allo. allo. waaw. El Hadj Assane. kooku. waaw man la Mamadou Madaro di la nuyu nuyu groupe Futurs Médias. ñu ngi lay waaw man daal li ma ci wax El Hadj Assane mooy xam nga journaliste moom. Hmm. moo xam dafay ci bu tasum xibaar la waaye nag euh, lii boykat bi si wax naa waru cee yokk waru cee wàññi. Hmm. waaw dëgg la liggéeyam lay waru cee yokk waru ci wàññi waaye nag léegi am na ci dañ euh, boo dem. am xam dañuy na nag am xam ne dañuy politique. Mm. wala dañuy euh, xam na ne bii xam na ne moom Ousmane Sonko la far. loolu bàyyil bàyyil Pape bi gënuloo ko ay ci kanam tuuti xëy na wala fekk suba nañ ko ne déglu gi ah. baal ma rek moo ko du eh, eh, Médor déedéet bàyyi ko nu wax ci principe bi ni mu ko waxee rek quoi gars yi bañ a politique cay def journalisme. wala booy politique nga ne fii laa far mu jeex yooyu moom sur le principe ànd nañ ci mais ñu bàyyi vraiment personnalisation débat bi quoi allo. allo oui. kooku. Ala Assane. waaw. Abdou Sarr Guèye Ndiog avocat kaw kaw yi. bisimilah. ñu ngi lay ziare bu baax. jërëjëf Sarr. tey yaa ngi lu am solo muy métier journaliste beeg journal ni mu doxe mm-hmm. Euh, léegi métier journal bi li ko xaw a xejamal tuuti mooy ñu bëri duñu wax ngir organe de presse bi mu nekk avancé wala yu demee noonu dañuy def journal pour mel ni daal ay activiste lañ wala ay politiciens lañ bëgg a doon di wut ay pour askan wi nu mu leen nawee daal mais du leen naw pour journal mm-hmm. métier journal bi ñu ne de mm-hmm. dañoo bëgg ñu naw leen pour yóbbu leen ensemble wala yu demee noonu mm-hmm. te yooyu moo taxalu journal parce que nag seen métier mii moom mooy li nga xam ne day yee nit ñi ci la nit ñi war a xame kon nag képp ku ci ne da nga liggéey sa akulaay taala te bañ a parparloo fenn mm, mm, mm. liggéey rek te yàlla tax ak fu mu mën di doon nag journal beeg tailleur beeg commerçant beeg ñëpp a ci yem lépp lu waaye di liggéey daal na liggéey te yàlla tax te bañ a liggéey ngir sa intérêt bopp li li tax ngay liggéey pour askan wi daal nekal ci loolu quoi mais bul di nekk di def journal pour préparé pour dem ensemble wala mm. dem nekk ministre wala yu demee noonu. parce que journal yu bëri léegi kenn xamul ay activiste lañ bëgg a doon wala ay politicien lañ bëgg a doon. <laughs> dana waar jërëjëf waay merci Abdou jërëjëf am na solo ni ko waxee ak lal ci loo mën a liggéey nag waaw moo xam mécanicien nga chauffeur nga mécanicien moytu moom pièces yu bon yi parce que loolu da ngay sànq nit waaw man xaw ma naka la nit mën a jënde pièce bon defal ko borom mu dem yoonam kooku moom responsabilité mënu ko weesu. waaw wala nga nekk chauffeur yi ne fa di whatsapp ak yooyu ca nga yeb ay bakkan donc métier boo gis dafa am dafa am ak yoonal <laughs> asalaamaaleykum. waaw aleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah. El Hadj Assane Gueye mu baax mi. kooku. El Hadj Alioune Fall protection d'assistance aux personnes démunies handicapées. ñu ngi lay ziar baax Fall. seen xarit yow ak El Hadj Amadou Garmi ak rajo bi yëpp nag. jërëjëf Fall. waaw man de ni ma ko xalaatee moo di. Mhm. dafay pouvoir. Mm-hmm. état bi poire moo tax buñ ko mënoon def póotum biir mm-hmm. te journaliste yëpp nag àndandoo mm-hmm. mais El Hadj Assane Gueye da ngay dem ci benn organe de presse mais boo déggee li mu dal ci RFM wala nga dégg mu dal ci beneen da ñàkk booloo gi te yent yàlla Muhammad dafa waxoon ne aljamaatu rahma alfarxatun asaabun su ngeen booloo mooy seen mucc bu ngeen teqalikoo mooy seen loraange mooy sànku tege de <laughs> mooy sànku tege béy nag bëy nag bu génnee langu bëy yi bu moytul dajeeg til la. <laughs> dëgg la de. dinaay faral di wax ni journaliste mu sawara la. Mm. kër gu mu amul kenn du lekk kenn du naan. Mm-hmm. waaye bés bu kër gi tàkkee mooma. Mm-hmm. loolu yàgg naa ko wax. dëgg la xam nga Adja Ndeye Rokhaya Mbodj. Mm-hmm. kenn mës koo demandé demande d'explication. dëgg la de suñu sœur <laughs> ndeysaan dem na ba retraité sœur bu baax Adja Ndeye Rokhaya Mbodj. et su ko defee yal na yàlla def jàmm ci réew mi yal na yàlla def jéggoo te ñuy waxtaan ak direction journalisme bi nag ñuy def ko póotum biir hmm. ndax euh, journalisme warul am effet hmm. ndax ndax ñu ne ci gannaawam daa bari dëgg la te yéen rek la ñuy diglu dëgg la Fall yàlla yàlla def jàmm ci réew mi yàlla yàlla def jéggoo jërëjëf contribution bi am na solo moo ne gars yi ngi fóot boobu ak léegi fóotee nanu ko nu ne waaye léeg-léeg dafay am tâche yoo xam ni moom ablay da nga dul xam ban produit koy dindi <laughs> te ci am ñu juux rek ci métier yépp nag métier yépp daal am na ñuy juux euh, c'est pas facile mais baax na ñuy fàttalante suñu biir rek asalaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi lay ziar sëñ bi allo. Mbaye ñu ngi si jàmm ñu ngi sant yàlla bu baax. alhamdulilah ñu ngi rafetlu émission bu baax a baax. merci beaucoup. xanaa di ñëwaat rek di leen fàttali ni. Mm-hmm. jërëjëf di rafetlu seen liggéey yow ak mm-hmm. euh, ku mel ni Mamadou Ibra Kane jërëjëf ak kenn euh, euh, Alassane Samba mm-hmm. vraiment ay journalistes exemplaires ci Sénégal. jërëjëf merci beaucoup. te liggéey bu am solo bi ngeen def journaliste yëpp moom nañu war a mm-hmm. xam nga man man rek maa xam lii daa neex. waaye nag xam li ngay wax. ak li ngay wax daa am solo. te da ngay gis ni léegi.

sa sécurité la sécurité sénégalais yëpp la. Mhm, dëgg la tey ji président Macky Sall bu demoon benn président day ñëw gendarmerie dafi des di aar suñu sécurité. Mhm. police dafi des di aar suñu sécurité. armée dafi des di aar suñu sécurité. très bis buñ ku képp ku jug ba salfaañe ko mbaa nga jaxase réew mi ci suñu kaw lay képp waat. Mhm. am na ci loo xam ne nag du gendarmerie sax ñoo ko war a régler ñun ñii ñoo ko war a Mhm. problème interne gendarmerie nañ leen bàyyi ñu réglé ko. Mhm. ñun citoyen nañ leen bàyyi ñu ak ñi ko war a réglé ñu réglé ko. ñun amuñ peut-être amuñ fa jot suñu ko jotewu fa pour mën ci. Mhm. donc nañ daal la amoon lu ma ci mhm. def Sénégal merci euh, na lool te mënoon na jël alalam def ko feneen mhm. mais jël alalam di ko def ci Sénégalais yi mhm. le seul bu recruté presque quatre mille emplois direct moo tax Sénégalais wax naan du fay impôt dama naan ñi dañoo dof bu <laughs> fay loolu sax kenn war ko wax Sénégal mhm. moom rek moo tax ma ko gis maa ngi koy sant bu baax xëy na mosuma ko gis waaye man ñu ngi koy ñaanal bu baax ñu ngi koy suivre bépp Sénégal bu ko yéene musiba daal ñu ngi koy ñaanal daal yàlla na ko fi ci kawam te moom yàlla na am jàmm rek jërëjëf jërëjëf dégg nañ ci moom daal yow tamit ku baax nga macha allah voilà nit moom ku ñàkk ki ñaan rek mooy gis mbaaxu doomu adama ndax wax mbaaxu nit du yàq dara ci sax mbaax yow waaye kuy fexe yàq nit te yàlla yàqu ko yow yaay mujj wax ba yàqu <laughs> xam nga mbay fall wax ba yàqu am na de am na ñu bari fogg na ni nit ñaa ngi nit ñi fekk jéppi nañ leen ci jéppi yu njëkk yee ya ndax seen wax ju bari ca bon 9h20 euh, je pense que jeex na Ablaye <laughs> sëñ bi sax ni mu ko daaneele moo neex waaw ci suñu kilifa waaw souvent booy wax ci nit dañ naan la mu nekk ak moom la muy liggéey ak moom nangam waaye wax dëgg yàlla euh, ku jara gërëm la ku jara sant waxun ko pour yi gëtam ndax sàlle rek lañ seq ak moom waaye nit bu defee lu baax ku gërëm li doo gërëm yàlla waaw yóbbu Sénégal fu ne yéen recrutement ngeen di wax waaye même côté diplomatie ah recrutement yi waxee si ko kooku boo ko gërëmul di ko saaga kon di xaw ma ñun fu nu jëm bu <laughs> ñu saaga ku mel noonu ñun xanaa dañ war a football rek ñu dalli ca ñag ba ñu yendu ak jàmm waaw waaw